ñu ngi nuyu bu baax ñu ngi nag le grand champion ordinateur ordi ñu gis la nga nekkoon ci lutte simple ba Sénégal gépp ràññee la léegi nag ñu gis la ci lutte avec frappe lan nga bëgg woné ci bëre wa waaw Fadam ñu ngi lay nuyu bu baax di rafet aussi. di sénégalais yépp yi di nuyu ñi nga xamante ne ñuy seetaan di nuyu suñu supporters yi nekk Sénégal ak bitim réew bàyyi ñu kenn. làmb lépp lu nga xamante ne rek nit def na ko làmb ci làmb dañoo pare pour def lu raw loolu moo tax ñu nekk ci simple bi en euh, même temps nekk ci dóor bi euh, waaye loolu la parce que gis nañ ni kenn kenn taxuñu bëree bëri dóor kenn ñu bëree bëri simple kon lu des nañu gars yi jox combat xam nga ñi nga xamante ñoo nekk suñu ginnaaw jàppale ñu xam nga ñu def li nga xam moo nekk si ñun mooy bëre noonu la mais tey ordinateur nekk benn mbër boo xam ne sénégalais yëpp dañ koy bëgg a gis ci lit avec frappe mais ndax ordinateur am na ginnaaw bu tax bu ko mën a jàppale fii ci ndakaaru mu mën a ràññee ndax loolu ordinateur am na ko cent pour cent waa gis nga instant bi bon am naa ñu ma fi jàppale xam nga parce que instant bi maa ngi maa ngi mbaaw installé wu mbaaw ñu jàpp ma bu baax a baax xam nga gars yi fa nekk yëpp samay waay lañ dañuy gaf ak man dañuy ree xam nga li ñu am bokk ak man waaw ma leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen wax ne combat bi seen combat la xam nga en tout cas lamb ji ñu ngi si nekkatul loo xamante dañuy naan xam nga def nañ wala def nañ nii fu ne tourné nañ ko si Afrique bu bëri xam nga yàlla di ñu defal ndam fii ci biir Sénégal itam xam nga bëri nañ ñu ak sanction bu nekk xam nga yàlla di ñu defal ndam kon des li des mooy ñu jéem a fexe yéeg couronne bi parce que loolu moom dama am gëm-gëm boobu. Mm-hmm. waaye. kon tey jii su ma leen gis damay gis ne ci askanu séeréer bu njëkk séeréer si daanu ñàkk champion. mais dañoo gis ne ba léegi séeréer si ni ñu war a jàppale mbaru séeréer yi pour ci wàllu arène jàppale wuñ leen noonu. waa ñu ngi ñaan ñu ngi leen di ñaan di leen def ay suñuy loxo ñu ñu gëstuwaat loolu bàyyi ci seen xel xam ne ñun làmb lañu am bëgg nañ ko gëm nañ ko yàlla def na ko suñu kon li des nañu gars yi jàppale xam nga bu ñu amee comment ñu mobiliser ñoom ñoom ñëpp xam nga ku ci nekk fi nga nekk même ñu la tuddul sax nga ñëw jàpp si nga xam ne si nga bokk xam nga pour affaire bi liggéey bi jëm kanam loolu rek la. waaye nekkatul loo xamante dañuy naan bëree ndax dañ koy jàngoon di jànguñu man moom dama ne ji dëgg la sax nangu naa mbër ëpp ma doole. nangu naa mbër ëpp ma yaram. mais gëw ma ne sax mbër ëpp na ma doole ko gëw. ma ne aussi. mbër dàq doole a bëri. non non waxatuma sax waxu bëre mais gën a ñeme coono ak gën koo bëgg bi. non loolu amul amul amul benn mbër boo xamante mu ngi Sénégal ma lay xalaat ne yaa ma gën a jënd coono làmb yaa ma gën a ñeme lu métti ci làmb mhm. déedéet. mais dama gis ne ordinateur bii bëri si ki Ndakaaru du ñu gis ay mbëru magu séeréer ñëw di ko gunge. te loolu liggéey nga ko ci làmb. waaw man la euh, yàlla dafa dogal Sénégal ni ko ma ko boo gisee sax am na yu bëri du ma ko mën a wax ci mbër mooy que gars yi dañoo dem ba ñoom ñëpp dañu maa bëgg waaye nag bu ñu génnee si cadre boobu dugg si cadre làmb. Mhm. tey man fi ma gars yi kii nii sax dama dépassé foofu. waaw combat yi ñu lay jox nii quoi. dama dépassé ñu ngi ñu ngi lay fu non man déggoo li ma la man ci kipaas bi tax laa nekk xëy na rek mais xoolal man ak ñoom Sa Thiès ay yi di boole ay combat ay Serigne Ndiaye ñu reyante parce que ñun ñoo nekk classe la xam. parents hmm? yi dañoo di mbokkante si bëre dóor bi léegi vite fait. Hmm. waaw kon buñ may jox ñii nii bon dinaa ko jël parce que dama bëgg bëre mais mais mais du ma ma du nekkul mën ak ñii quoi wax dëgg fa ne. gis ne ba léegi ordinateur li nekk ci yaramam pour li mu yor ci wàllu bëri ak li yor ci wàllu bëri dóor pour mu feeñ joxaguñ ko adversaire yi nga xam ne mooy tax mu feeñ. voilà loolooy problème bi nag nañ ma jox ponkal yi ñu soog a xam ndax man li may def dama ko mën wala wala dama koo ñëw nañ ma jox ngeen nañ ma jox ñoo xamante ne dañoo jàpp ni ñoo ma ëpp. man mm-hmm. foofu laay fonctionné quoi billaahi foofu laay fonctionné. ordinateur fan la bëgg a yóbbu ci turu séeréer. ci walu bëri door ci tour géré lan mo ci nek rêve ordinateur inshallah rabbi ci katam yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may wër ak jamm dina tey roi des arènes sénégal incha rabbi ci katam yàlla inshallah allah gëm na ko dina ko def lu mu to nga wax lolu fadam lu mu wax lu ma la wax dafa nek ci man dama ko gëm ndax dama la mës fekk giiw ar national ma ñëw na ordinateur té loo yëg nga dama lamb làmb fowum góor la fowum lolu do gëri ci sama bop ñu bëre di kat di ree mu neex mais mais mais tey jii dama gis ne Bëré Dóor dafa soxla ordinateur loo bi ci kaw ñoom Sa Thiès Reug Reug ah daanaan yooyu dañoo bëgg ñoom ku mel ne ordinateur ñëw mottali ci leen. mais pour ordinateur mën a am loolu ñen ñoo ko mën a jàppale ak ñen ñoo ko mën a dimbale ba loolu mën am. samay mbokku séeréer. waaw ah, kay nañ ma jàppale sama nañ ma jàppale ma mbokku séeréer tey jii suñ ci bëggoon a cité kan lay doon. waaw dëgg la nit moom foo nekk nit nit ñaa ngi lay jàppale am na ñu sonn ci man fa dam am na ñoo xamante ne du ñu lekk mm-hmm. mais nañ dama bëgg ñu gën a jàppaat xam ne man lañ am mm-hmm. man laa am nañ ngi ne yaa ngi naa la ci sama combat bi foo nekk nag bu ma jaaree ci sa tur bu ma naa la ci bi nga jàpp mais tey ban mbër mu magu séeréer mooy réewu ordinateur muy bëre ordinateur di ko gis ci wetam te ji am nga reef. waaw man am naa ay grand yoo xamante ne man euh, ñi jaar ci bëre nekk séeréer nekk ay ancien. ñooñu dañ leen a jàppale woon dañ ñoom ñëpp wax dëgg nag yàlla dañ ma bëgg man moom dama ne képp kuy dund làmb rek man dama ne da maa bëgg quoi bañ ma ko waaw vraiment. mais mais ordinateur li ma lay laaj dafa am ay roi des arènes ñoo ne nii ci askanu séeréer lañ bokkoon ku mel ni ay Diop Yékini ku mel ni Père Manga 2 te ji champion yu mel ni yan nekk ay séeréer. dan nañ gis yekini bu bëri père Robert day ñew han ah, mang de magu sir ci dañ ko daan gunge tey jii dañu gis ne yéen bu ngeen di bëri ci lamb da ngeen di wéet loolu comme nu olof yi ni ñu leen di gungee yéen duñ leen gungé noonu lu waral lool wa subhanahu xam nga temps bi dina manqué nit ba mu bëgg def dara du ko def mais nak bu ñu tasee ak ordinateur ya nga rafetal ya nga rafetal non mais non ya nga rafetal ya nga rafetal yàlla comme ni mhm. may wax rek xam nga nit ki moom bu dé benn fan sax bu tassé ak yow jox la conseil han mhm. ah, bon participer na quoi wax dëgg ñi nga tuddu loolu yëpp bu ma tasee ñoom dañ may jox conseil góorgóorlu defal lii defal lii muy Yaxya muy père Manga muy ñeneen ak ñeneen ñëpp mënu ma leen na lim ba mu jeex mais ñi ci jaar si dam yëpp man dégg ma dégg ma jaaral si yoon dégg ma ne góorgóorlu xam nga ñu ngi am ñu ngi sa ginnaaw quoi mais boo sañoon booy bëri gis Yaxya Jóob yi ki ni sa wet wala nga gis père Manga de mu ñëw ci kiiw conseiller la comme ni ko ñoom père Kayre di defee wala ñoom père Balla Gaye ñu ñu ngi Balla Gaye ndaanaan yooyu ni ñu ko daan defee waaw su ma sañoon su may bëree manam ni jaar ci làmb yépp yépp nek séré te baye dem su ma sañoon su ma ñu nek sama ginaaw mhm. parce que làmb ji wax dëgg li ma si bëgg def dafa guma ko waaw ko man man xam ordinateur man xam na ne li nga wara mëna jëriñ lamb ba légui dafa goo ko lu bari loolu nak bon au fond nak bon ma ngi koy di jàppale bi dafa nek ci mais nak na nag ndànk-ndànk xam nga tax leen ci sorti quoi en tout cas duñu tayal duñu ñu mais duñu ñu ngi tek ñepp suñu loxo muy séré muy olof muy joolaa muy. mais le 24 décembre loolu la la ñëwee ban ordre yi ñëw war a ñëw. dama bëgg a bàyyi ba jour ba. <laughs> non amateur olof yi sax lañ lay xaar. jour boobu dama bëgg a bàyyi ba jour ba ma ñëw wan leen wan nit ñi lu leer nañ. laa ilaaha illallaah ci kattanu yàlla suñu borom. mais xam nga ne olof yi sax ñoo la gën a bëgg séeréer si. Ousmane Gadigal bëgguma sax wax ak moom si combat bi parce que combat ma ak moom. waaw waaw jàmbaar la nag ndaanaan la mais bokkuñu niveau. Ousmane Gadigal gars yi dañ koy coow ci côté xeex. incha allah bu ñu yëg si. mais tey jii question bi may tëjee ak yow rek euh, kii nga xam ne nii tey jii mooy ordinateur nee na daa bëgg a nekk roi des arènes. incha allah si kattan yàlla pour bën mbër moo nekk rêve pour mu gunge ordinateur ba mu nekk roi des arènes. def naa ñëpp samay loxo am naa ay gars yu baax mu ko si mel ni mool on. waaw mool la sama <laughs> sama toog. ndaanaan la waaw ñooñu samay sama waaw ñooñu samay lañ. Mhm. dañuy sonn. man maa leen di teg loxo ak tombe tombe seen tombe seen waaw ñooñu yëpp ah samay grand yu baax lañ te xam nga su ma damay juum parce que nag wax dëgg ne yàlla euh, ñëpp a sama ginnaaw di ma ñaanal su may su suñu gisantee suñu gisantoo damay toog ba ñu yóbbante si man ay xam nga ay conseil maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ak wér. mais nag le 24 décembre Sénégal gépp a lay xaar ban ordinateur yi ñëw loolu bëgg nañ ko gis ci aada bi bi tuus mi bëri bi. bu ñuy exiger ba lépp dina sotti kontaan nañ ci yow. jërëjëf lamb yëpp ñu ngi lay félicité. ndax ndaanaan nga. sagu réew mi nga. jàmbaar nga. Fadam Sénégal dañ maa dese xam. oh lu tax bu ñu àndoon ak man si compétition yi may dem ñu soog a xamal maay. lan moo tax ngeen Sénégal dañ laa dañ laa dese kon am na luy nelaw ci yow loo xam ne sénégalais xamaguñ ko. ñu commission CNG bi ànd ak man ñoom Bira Sène père Bira bu baax a baax a baax na na gars yi dem laaj leen la illah man nekkuma nit kuy wax mais mais mais sama niveau. mais dañu gis ne tey jii lii gën a ci yow communication moo waral. waaw man nag loolu la ma bi def quoi dafa sedd quoi vraiment. mais sedd bi sedd bi ci man xam nga dama ne eh, xam eh, nga eh, góor moom xam nga comme li wax rek du yàgg bu yàlla fay wax bàyyi jëf quoi man ci jëf bi laa fekk mais tey jii yan mbër moo nekk rêve ordinateur li ci mu pour li ci ordinateur nit ñi li ma bëgg ñaan waaw. combat bu ñu ma mun a tegal rek ñu ne kii ordinateur amul si moom buntu ba keroog may yëg fi may jëm loolu laa bëgg. loolu loolu mbër la yan mbër nga yaakaar ne tey jii buñ ko tëggoon ordinateur dina mel noonu. man dama la ne am na ci kam dafa am ci kipaas bu mu boo muy kan ak mooy kipaas bi tey xool ay Sa ay Serigne Ndiaye ay franc yi nii ah boobu noonu. la ilaha illallah walaay dañoo war a bëri dañoo war a dinaa la seet si ñu waxtaan jaajëf